ردي في الأدى البيض ومدادي هلا وسهلا وترهبا للأعداد يا salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu kon mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu fa yéene ànd ak yéen ci seen naafila guddik tey incha allah muy dëppook àllarba ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru avril 2020 di juróomi fan ci koor gi kon guddik tey mooy doon guddik juróom-benneel sëriñ bi dafa wax ni guddig juróom-benneel ga ku ca julli ñaari rakka rakka bu ci ne nga jàng faatiha benn yoon ak qul huwallahu ahad basaar wa jeex fukki yoon ak ñaar faatiha benn yoon qul huwallahu ak ñaar ne loolu ku ko def mel na ni ku julli ci maqaama ibrahima junni yoon wala junni rakka julli ca jàkkay Makka junni rakkan saraxe junni dërëm leele junni ñu xiif te bu ñaanee des na ko nangu mel na ni ku joxe ndogu xeetu yonent bi sallallahu taala alayhi wa wépp te bu faatoo it ñu boole kook ña ci jihaat te des na ko musal ci mitiitu dee te bàmmee des na ko defal mu bok ci deuri aljana ya te bi dekk dana ànd ak leer gu melni jant bi di xeeñ geut ga gën neex te dana tabbi aljana te dees ko xisab te ca mbollem yonenti lay bok bu ëllëgee kon julli ga ngok yal nañ ko suñu borom man lo te ñu def ko te def ko nim ko bëggé mu nangul ñuko fulal làqal ñu ko fa yàq eggul bi barkati Cheikh Al Khadim Yeah. على مسلم